aouzu billahi samiil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwata illa billahi alil azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk julli di comme ni leen ko digge woon seen émission bii passé ñi ngi am mbégte te dalal ak yéen ci seen émission alhuda di waxtaan ak yéen tey nag ci émission ci thème bu am solo muy sëriñ bu matul sëriñ sëriñ boo xamante ni sëriñ si muy sëriñ si muy woote matu ko te loolu dafa bëri ci jamono te itam nit ñi ñi ngi dem ba dañuy réer ndaxte dañuy dégg sëriñ mu am mbooloo nit ñi topp ko wala mu am bayre lu mu defee ñu jàpp ne noonu la te fekk na loolu mën naa bañ a dëppoo ak sharia incha allah ñu bëgg leen leeral bu baax xew-xew yi nga xamante ne dafay xew te yàlla woo ko diglew ko yonent bi diglew ko sëriñ Tuubaa diglew ko alaaji Maalik diglew ko kenn ci ñoom diglew ko lu loolu ñoom seen bànneexu bàkkan la ñuy nekk loolu nag sëriñ Tuubaa ci boppam da koo jàngale ndax nee na ma baana jëxëran annama suyuqu hada zaman julluhum fuxux sëriñ Tuubaa neen li ëpp si sëriñ ci jamono ci nee na ay fiir lañ da leen di gis seen mbubb yu rafet ak seen dara ak seen i kër ak seen bayra ñu jàpp ni ñoom de ñu mat leen doon te fekk na boo demee ci biir Serigne Touba nee na golo moom ma leen ëpp daya sa borom Serigne boo xamante ni da ngay ànd ak say taalibe ci lu la neex wala nga ànd ak say taalibe ci lu la neex Serigne Touba nee na boo dee sawara nga jëm yàgg taalibe yi waaye nee boo xamante ni da ànd ak say taalibe ci lu neex yàlla nee na boo dee suñu borom gërëm la gërëm taalibe yi léegi Serigne boo xam ni nit dañoo jébul ci moom tàgguwul ndayam tàgguwul baayam lu mu am joxo ko bu ko defee sëriñ ba ànd moom ca la ka neex sëriñ Tuubaa nit ñëw na ni ko Mbàkke damaa bëgg a jébul ci yow mun ko ndax am nga sa waajur mun ko aw ma ko mun ko laggal nga dem laajji ko bi mu sëriñ Tuubaa ni ko man ku topp ku topp laa yemale nga gis ni kon sëriñ Tuubaa moom benn la ci te woote gi mu daan woote da daan woote ngir jëm yàlla waaye sëriñ si nga xam te ñoo nekk ci jamono ji li ëpp ci li ñuy woote maanaam mooy xaalis moo tax ñuy woote woo nit ñi ngir mën a lekk jël sale seen poos wala woo nit ñi ngir mën a dara dara jowoo leen loolu moo fi ëpp te itam loolu dafa doon loo xamante ni nit ngi dañ cee war a yeewu ngir ñu mën a xam ki ñuy topp ndax suñ tubaa nee na waman tawassala bi waasilin wasal waman tawassala bi ak seen fasal képp koo xamante ni jokk nga ci sëriñ bu yegg di nga yegg waaye ku jokkul ci sëriñ bu yegg doo yegg te itam nit ñi fi mu toll mëntuñu koo xàmmee ndax tey li ma wax sànq da ngay gis sëriñ boo xamante ni danaa la ci famille sàngam laa bokk ndax bokk ci famille tokkul taxul nga mën a doon sëriñ xoole si dinaa nuux waxuma la sëriñ daa yonent laa lay wax yàlla da ko ni woon defaral gaal gaal gi nga dinaa la sauver yaag sa ñoñ bi mu defaree gaal ga pare kanhaan mi nga xam doom la bokk ca ak beneen soxnaam ba ñoom dañoo mën a lap dañoo mujj lap ca ca géej ga noox daal ni suñ borom waa diggoon nga promettre ma nga ni ma sama sama ñoon dinañ dinañ sauvé wu te sama doom lab na mook sama doom yàlla ni ko ñooñu bokkuñu sa ñoon innahu amalun ghayru saalih wala tasal ni maa laysa laka bihi ilmun ñooñu bokkuñu sa ñoon kon bokku ci famille boo xamante ni famille religieuse la du caagin ni lafa ka ku baax ka ba woon yow loola moom nga war a moom maanaam moo ne ci yow ndaxte sëriñ dafa am ñaar sëriñ boo xamante ni dañ koy xool ci ci jëfin ak sëriñ boo xamante ni pas-pas ba sell na wicc kooku moo tax ñuy wax waaye li ëpp si jamono mooy sëriñ boo xamante koo xamante ni danaan man diw sama maam wàllu la woon wala sama baay wàllu yoon bu baax nga xamante ni moo nu njëkk ci nit ki war ko bu nga taxaw si këlam nit ñi nag ni leen nag man li fi fekk na dara nekku fa kon boobaa kooku yaa ngi réer nit ñi te itam da am yenn yoo xamante ni sariya diwlu ko fenn ndaxte li nit ki ki nga war a njëkk a teral mooy sa waajur ba noppi sa waajur bu noppee ba noppi nga soog nag dem ko sëriñ waaye nag sëriñ ba ngay dem na fekk mu matee àndaar yi nga xamante ni charia nat na maanaam maanaam fees na ko waaye sëriñ boo xamante ni su fekkee ni maanaam yow li nga wut ci taale bi maanaam mooy fexe ba am alalam wala fexe ba gañ a conscience wala fexe nga xëy dara joo ndax fi mu toll li ëpp si nii sëriñ ci mooy ni nga ci gis sëriñ soo xamante ni la ñuy fexewoo mooy seen tur di di jiw ci kaw rek ñi ngi dégg naan sëriñ diw moo am xaalis wala sëriñ diw moo am daraja wala sëriñ diw moo def ni moo def laa te loolu rafetul te itam ñëw na ci alxuraan waqubatu ibn abi muqiit keroog bi nga xamante ni ubay ibn xalaf waquba daa tukki woon ñëw invité yoon saa salam ni ko damaa bëgg def benn ngan damaa bëgg nga ñëw xéwlu yonte ni ko man du ma lekk ñamu kéefër ubay ibn xalaf ni ko yow kii ñëw fi di woote waaye nu mujjee laxat la yaa laytanii lam attaxis fulaanan xaliilan ay waay bu ma yëgoon du ma topp Uqba mi ak xarit laxat addallanii ani addallanii ani zikr moom day réeral na ma ci njub gi nga xam ni moom la yonent bi am doon woo kon nit ki ki ngay topp daa doon koo xamante ni mate na àndaar yi nga xamante ni moom la sharia topp de digal ndax den ni yasxabu sayxan aarifal masaliki yaqihi fi tarihi mahaaliki da ngay topp sëriñ boo xamante ni day xam yoonu njub xam yoon bu baax a baax bu ko defee ànd tegeew jox jëm si jëm si yow ndax suñu tubaa neen a sayxu maneen tariq man maneen kashifa lahu turuqu najaat wa dalla alayhi sëriñ mooy ki nga xamante ni bëti xolam set na wicc ba mu xam yoon njub bu ko defee mën a ànd ak taalibi ba nag jox jëm si ca boromam te nee na sëriñ ci ëpp si ci jamono ji leen li leen yitteel du loolu li leen yitteel maanaam mooy fexe ba dëttu na nit ñi ngir a ñoom ñu ñëw seen bànneexu boppam te yàlla nee na képp koo xam te képp koo xam ne da ngay ànd ak nit ñi si sa bànneexu bakkan loolu moom boobaa seytaane mooy mooy mooy mooy seen sëriñ ndax sa suñ tubaa nee na euh, képp koo xam te ne ànd nga ak taalibe ci sa bànneexu bakkan nee na ëllëg yoo xam ne xiyam sawar rek mooy mooy sa kër kon loolu lu nu seetlu la woon ci xew-xew jamono loo xamante ne àndut ak islam te tam bëri na loo xamante ne ñu ngi koy organiser muy fi mu toll li fi ne si ay conférence ak ay gàmm ci kaw suuf kenn xamul lu mu doon rawatina Sénégal gii te lu ëpp ci loolu liñ koy dara taxul ñu ko def ñul xaalis maanaam fexe ba jël nit ñi seen xaalis li ne seen seen poos conférence boo xamante ni wala gàmm goo xamante ni nguur ga rek nga fay gis parrain diw parrain diw parrain diw parrain diw te boo xoolee juróom-ñaar wala juróom-ñaari parrain yi seen nekk yëpp ci ay nitu nguur lañ doon nga gis ni kon ñooñu seen yitte yellul sellul li leen yitteel du fe du lenn lul fexe ba seen conférence ak turu diina ñi ñi ñuy organiser ñu mën cee amee xaalis wala ñu mën cee am dayoo wala nit ngi di ci dégg loolu nag charia diglewu ko yonent bi diglewu ko Serigne Touba diglewu ko kenn diglewu ko Serigne Touba ci boppam tabax na Jurbel ak euh, teen demaat men lu benn benn diir bu sori tabaxaat fa benn teen daani taalibe bu góor buy jaar fii teen mi xam ne fi la jigéen ñi di di di jaar li ngay wut awma ko ba yow nga génn sama kër dem wuti ji ko feneen daani jigéen joo xam te ne jaar nga fi góor ñi di jaar ni ngay wut awma ko da wuti ko fenn awma ko kon naka ngay mën a d'accord ci ay ñoo xam te ne dangay dajale ak góor ak jigéen ci benn tànt ñuy sarxole di yuuxu sëriñ ba toog ñu pat jàpp ne loolu ñu ci am yàlla duñu ci am yàlla ndaxte sëriñ soxna soo xamante ne bu toog ma nga toog ma nga eh, eh, maki yow ba kalam nga boo kenn xamul lu mel sol loo xamante ni yow fekkee ngay wax ngir islam rek ci moom nga a njëkk a tàmbale waaye nag ñoom duñ ko def ndaxte seen yitte yël sellul ku yitte sellu mooy nga xamante ni gis na yàlla xolam sell na moom day def ngir jëm suñu borom loolu dafa bëri loo xamante ni bëri na lu muy lu ñuy lu ñuy dal suñu société bi te itam dañ cee war a waxtaan ndaxte loolu sellul gis nañ fi jamono yi paase rek ay seex jigéen seex jigéen loolu xam nga ni teewul fenn si yow jigéen ci boppam ñu teral la jox sa loxo góor ngay joxe nit ngir ñu si jóotal la waxuma leen yaa ngi bàyyi sa bopp sa ah, karaw ga wàcc sa suuf xeesal ba xees picc waaye nag loolu ñun sax duñ wax ñooñ dara ñi leen di topp si boppam ñoo wére di yow naka nga mën a gisee jigéen yàlla jàngal la nga xam lii lu baax ak lu bon nga gis kii jigéen la rek ngay nëri nëri ci kalawam di ko si góotal ak lu kenn xamul ñi leen topp ñoo ko def Sëriñ Tuubaa dani boo ànd ak sëriñ ci ci ci ab ànd boo demee ba gis ko mu def na ko su noonu taxawal xaar ko yow bu génnee sharia yow taxawal xaar ko bu ko génn waaye fii da ngay gis sëriñ boo xamante ni day def jóllari bu ñëpp dégg waaye boobu la ko ci taalibe yi gën a gëm ànd ba yàlla taxul bu ànd nit ci ay ci ci yàlla rek tax bu demee ba génn loola yow ngay taxaw xaal ko xam ni lii yàlla taxul nga bokkoo dem wuti keneen kon ñi ngi ñi ngi ñi ngi guddal di xam ne ni daal loolu doon na loo xamante ni islaam rafetul ko ànd bu rafet mooy ànd bi nga xamante ni moom la yoon saa salaam jàngale suñu borom jàngale ko ndax yàlla dani yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wabtaxu ilayhi wasila yéen ñi nga xam te ne ragal ragal ngeen yàlla ngeen gëm ko wut leen ci yàlla koo xamante ni moom moo leen di yóbbu ca moom waaye sëriñ nag mooy ki nga xamante ni xam na yoonu njub xam-xam bu wér ba noppi nag ànd ak taale dox jëm ca kooku mooy sëriñ mat sëriñ waaye sëriñ mat sëriñ du càgg ne seriñ bi nga ges fi ndax suñu tuwaa dani waa jarbatu rijaali qabla suxba wala tu saaxib xubran aw zaaraba nee na yell na ci nga topp sëriñ waaye nag nee na nga ko na nga ko càmbar bala nga xaw topp waaye naka la ñuy xamee sëriñ baaxu bon mooy ci waxam ak ci jëfam ndaxte ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi baaxu sëriñ mi ngi tàmbale ci bëgg mi bëgg yàlla bëgg yàlla moom moo lay jural nga bëgg alxuraan bëgg alxuraan moom moo lay jural nga bëgg yonent bi bëgg yonent bi moo lay moo lay jural nga topp charia maanaam sunnaam si sëriñ boo xamante ni toppul charia diglewul lu baax terewul lu baax terewul lu bon kooku jërul topp ki jar a topp mooy ki nga xamante ni boo ko xoolee rek tàmbalee gis ci moom yàlla xam ne kii mi ngi ci yoon siyaata moo nga topp ko kon ñu ngi jégal bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu